maire ki nekk ci maire bi moom dama ko yërëm ndax xëy sax bëgg na. ah ki bi nga koy yërëm sëñ bi mooy xëy na am na yéene liggéey wala leneen waaye mu munta liggéeyam ndax bala nga a liggéey compétence bi dafa war a nekk ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye koo xamante ni xamul dara munul dara lim man mooy nelaw. monsieur le maire xamul <laughs> <laughs> xamul dara man mooy ne sëñ bi ma fi teg nangam ak nangam kooku moom li mu li mu war a def li mu war a def moom mooy li hmm. hmm. mu war a def moom yëpp yëpp yëpp jëlaat liñ ko dénkoon moom jox ko sëñ Sidi sëñ Sidi xool ko compétent mu jox ko dëkk bi ndax dëkk bu ñu ne fa la sëñ Tuubaa dëkk sëñ Tuubaa ni ko am mm-hmm. ak sëñ Tuubaa ni ko xam-xam ñore woon mm-hmm. def adduna bépp ci xam-xam ñu ne kan moo jiite dëkk bi ñu ne ka ko jiite mënta liir mënta bind loolu moom gàcce la ci yoonu murit moom loolu moom lu ñu war a rectifier la moom mais est-ce que moom nga war a attaquer ka ko jox kay sëñ bi xanaa moom nga war a waxal buñ la joxee loo mënul da nga koy delloo <laughs> léegi buñ la joxee loo mënul nga ñëw ne lii man sëñ bi jox nga yow yaa ne mënu ko mais moom waxu la mënu ko ah mu ay mënu ko kay ay fee la mm. munu ko ay fele di munu ko mooy ba mu fi toog ba def fi dara. laaj ko def fi dara. ah li mu fi def bilan ba mu fi toogee ba léegi. bilan sero sero zéro zéro zéro bi def fi tus. lan ko def fi dara lu <laughs> dul bénéfice ci di ci tabax di ci takk ay jabar di ci tabax ay kër. di taxawal lu ko neex mu def. li war a def mooy woote conférence de presse ñëpp di ko diglu bu ca paree it wëraat ci kër waa Touba yëpp yëpp yëpp doon da def giru dundum yëpp mu jéggul leen mm. jëlaat lengee rek jox ko sëñ Sidi mm. sëñ li fi nekk ci ay nit ñu jàng li fi nekk ci ay borom xam-xam di ay taalibe sëñ Touba kenn xamuñu toll mu jël dëkk bi jox leen ko mm. Touba développé ndax bu Touba développé Sénégal développé